xamul tey nu muy demee ndax xëy na sax lundi amoon na question yu jib yoo xam ni xëy na tontu ko waroon na waaye dangay xam ni boo ci duggee doo mën a indi réponse bu satisfaisante lu nga dugg ci temu tey te bëgguma woon anticiper xanaa ñu xool lu ci xaj rek ñu ñëw ci bi si njëkk xëy na sax ñëwaat na tey te muy li ngeen di wowe handicap mana nit mën na judd silmaha nit mën na judd manké lenen ci li ngeen di wowe manké ndax man tuddeewu ma ko manqué gis nga dégg la lay ndax yalla yàlla moom xoolewu ko non bu len faté ni nit ku nek limu soxla ci liggéey bi ko yalla li doye daf koy indalé kon li ngeen di woowee manque ta nek yalla du joxe lu matadi waye gis nga il faut ngeen xol angle angle de perception bi ngeen ci jël dans le sens où nekkul problème de femme am lu ñu manqué déedéet seen perception lañ ajuster par rapport ak réalité bi ñu war réalité bo xam nak légui sen évolution ci lay ci lay teud pour mën a ñeneen ñi nga xam sen seen fonctionner a ngi fonctionné te jëriñu woo ko ndax nattu mënta weesu say bët di dox say nopp di dox ngay dox ak say tànk di jox di di di tëy ak say loxo te yalla xam ni ben amulul ci njëriñ motax bu fekke ci ñun japp nañ ni até moy preuve tangible de l'existence de Dieu non lañ jappé ci ñi ngeen di wowe handicapé ñuy les premiers enseignants de Dieu ndax ni ngay toogee di jàmbat ah tey de liggéeyuma sama liggéey metti nga gis léegi koo xam ni xëy na ay cëram matul ay bëtam doxul ci waxin moom mu dem di daani dooleem di jël di indi boo ci xoolee di nga ami jom de noonu rek la toll moo tax ñoom sax seen processus d'évolution am na fu leen ci yàlla di jàppale li tax boo leen seetlu ku ñàkk ay bëtam noppam gën a baax te kon Euh, imprécision bi beut daan indi nopp da koy dakh ndax mom angle angle de perception bi mu lay indil fay différent kon nak ni ngay analyser dotul bok kon nak li djumlo ki am beut du la juumloo yow ndax li ngay dégg moo li ngay gis yooyu yëpp façon la <laughs> waaw

taxul nga dund nit ñàkkal lépp ne la lépp rëcc ne lépp jafe ci yow waaye yàlla dundal la foofu li nga ciy jàngee lenn la xam nga sax ñoo ngi indi Cheikh El Hadji Malick indi Serigne Babacar waaye gis nga yooyu ay enseignement la ndax gis nga technologie technologie bi yàlla def ci yaram weesu na sax loolu ñoom seen seen fonk fonk gi ñu fonk seen principe moo tax technologie boobu sax duñ ko jëfandikoo waaye yàlla may na nit capacité wu tey jii lekkal lu la neex lekkal lu la neex di nga trier sa yaram lan la ci nan nan la ci nangoo absorber li si des génn ce qui fait que au final li ñuy wax alimentation équilibrée soxlaatoo ko parce que yaa ko équilibré sa bopp sa yaram mooy xool ne exactement lii ak lii laa soxla li si des yëpp génnee naa ko. ci loolu aussi loolu yëpp xam nga Pape Cheikh Sarr indi léegi théorie wu Darwin gis nga déggoo dafa jafe ndax en effet dafa juum comme ñu bëri ni ñuy juumee ci cadre nit ak doomu aadama xam nga dafa dafa ñëw ci question yi ñu posé premier jour bi lundi baatu destin bi ñuy tudd destin nit moomu ko doomu aadama ko moom nit momul destin volonté la mom dama né nit momul destin volonté la do mo adama mom mom tok di xaar yalla ne ko demal fi ndax xeyna do mo adama am na xel way dafa am luñu wowe le noyau humain le noyau humain moy fi nga xamni ni xel ruh ak yaram foofu lañ dajé nit bu man man gi fofu la originé way comme doomu aadama amul loolu évolution euh, sax fu la volonté bi amul soubassement amul euh, fondation bu mu mën a pour meuna légui légui avancer loo nit ci cadre évolution motax moo tax destin doomu aadama ko mom waaye nit volonté la mom ci volonté bobu lay jaar liko yalla sante mu meun ci dox ti du ci def faute ci volonté boobu lay jaar defal yàlla li mu li mu li mu soxla ci moom sans pourtant yàlla di def benn benn annotement ci loolu lay jaar ba def liggéey bi nam ko war a defee te bu pare kenn du ko teg amende kon nag volonté nit moo ko moom